mbas mi moom depuis buñ ko buñ bu mu dëkk ñëwee ci dëkk bi moom euh, ñun ñëpp ci am ay difficulté maintenant nag ay degré ay à des degrés c'est vrai que nag euh, difficulté yi bu muy gën a métti nag mooy période bu ngay bu ñu bi nga xam ne prise en charge à domicile bi démarré wutoon parce que boobu euh, nit ki presque du du du nit ki moo dem am choix waaw bu ñu positif moom mu neex la mu la dañ lay donc pour jaree ça ba force de l'ordre d'intervenir parce que euh, si si taxawaay boobu lañ nekkoon mais au fur et à mesure dem nen dem nen xam nga loo gis ay expérience la dañuy jang di évaluer di évaluer di évaluer ba finalement ñi dem ba toll fo xam ne hôpitaux yi tout attanatuñ woon cas positif yi te gisoon aussi cas positif yu bëri yi ñu yóbbu ci hôpitaux yi ci peut-être mënoon leen leen gérer à domicile parce que nga yóbbu nit ki hôpital aussi defalo ko ben garab amul ben symptôme donc yooyu indi na nit ñi di évaluer ba né dal pourquoi cas mi préconiser prise en charge à domicile té buñ ko défé aussi wax deug yalla ay réussite lañ ci gis té réussite yooyu aussi dem na tax na aussi ba véritablement xam nga légui nit ki ci bopam day mom ci bopam day choisir bu la waxee ne boo ko la ah man à domicile moo ma gënal yow tamit da ngay évaluer suivant état de santé suivant signe mu yu yu présente maintenant lenn nag moo ci gën a ci risque majeur bi nit ki souvent xam nga koo xam mu ngi ci këram assuré mu ngi respecté parce que aussi du ñàkk ñoo ne peut-être comme kenn nekkul seen wet mun nañ génn commencer continuer dox seen ay euh, ay occupation loolu nag aussi peut-être nek na ci euh, ci contrainte